maa ngi tudd Adja Aïda Cissé maa ngi dëkk fii ci Daaru Xudoos euh, département bu Tivaouane léegi baa ni ma ni bala ma ni Daaru Xudoos Mboro maa nekk présidente union locale de groupement promotion féminine de la commune de Daaru Xudoos maa nekk itam en euh, même temps la secrétaire générale au niveau de l'arrondissement bu Mewane euh, maa nekk tam la trésorière générale réseau femmes rurales au niveau national ma nekk fii nag ci Daaru Xudoos ci yëngu ci wàllu développement ndax defe naa ne ku ni groupement rek ni développement suñu groupement yi nag mu nekk ay groupement apolitique ñuy yëngutu ci wàllu développement vraiment di ci yëngu-yëngu bu am solo ci activité yi nga xam ci la ñuy mëne fii ci biir euh, commune bi defe naa ni suñu activité principale c'est le maraîchage dinañ def tam transformation fruits et légumes et céréales dinañ def aviculture dinañ def élevage dinañ def petit commerce dinañ def artisanat dinañ def teinture dinañ def savonnerie defe naa ne activité yu bare bare yoo xam jigéen ñaa ngi ko yëngu ci biir Sénégal rek jigéen ñaa ngi ko yëngatu fii waaye nag activité principale moom c'est le maraîchage wàllu béyum légume ci la ñuy yëngatu. ñu ngi def tam formation parce que tam léegi léegi tam ñu am ay suñuy partenaires yu ñuy gunge comme waa IPAR comme ni ngi tey gunge nañu ci formation yu bare bare. ci femme et foncier jigéen ak suuf jigéen nañ lay saytoo suuf jigéen nañ lay jotee suuf ak gàllankoor yi nga xam nekk na ci suuf te jigéen doon ko dunde lu baree baree bari te vraiment IPAR yee nañu ci ba nga xamante ni tey ñun daan def jigéen du doon suuf jigéen bu amee toolam tam daf koy bazarder mbaa xam nan la koy yore loolu yëpp kon tey defe naa ne loolu tey lu ci baree bari tey defe naa ne mun naa ni cinquante pour cent yi ci zone bi tey jigéen ñi xam nañu li ñuy li def yore suuf. xam nañ tamit bu ñu amee suuf fan la ñuy jaar ba wutal ko papier bu nga xam ne dinañ xam ni suuf bi kat dañ leen koo dénk kon loolu tamit bu ñu ko amee ci formation itam ñu ngi ciy sant partenaires yi waaye surtout ñu ciy sant tam vraiment IPAR ndax def na ci ay liggéey yu am solo ci femme ak foncier. defe naa ne bi corona bi ñëwee moom dañuy wax rek ci première phase bi frappé maanaam dóor bu metti bi nga xamante dóor nañu ko ndax defe naa ci première phase bi. bu ngeen xewlee xam ni juste bi muy ñëw dafa tombé ak li nga xam ne suñu nga doon bay ñor suñu bay ñor ñu tëj marché yi tëj transport bi te yow béykat yi dañoo leboon ci banque bi ñeneen ñi leb ci euh, ci euh, commerçant yu mag yi seen seen produit euh, maanaam liggéey ñor juste ñu tëj marché yi tëj transport bi kenn dematul kenn dikkatul li nga ñi nga xamante ni ñoo newoon ci biir àll bi di say famille xam doon nañu daw di rëngatu ci àll bi di liggéey di mën a indi ci kër gi ñoom ñëpp kenn ku ne xool nga porte boo jaar ba daw ñibbisiwaat ci biir kër gi nga xam li nga xamante ne tey nekk na ci kër nga waroon ko dundee ci benn weer ok ko ci at mbala nga waroon ko dund ci juróom eh, benn weer dundee ko ko ci ñaari weer ndax sa yëpp ñibbisi nañ te kenn yëngatuutul kenn demul kenn bougetul mënoo jaay li nga li nga béyoon mënoo koo jaay mënoo koo def neen ñi nga xamante ni béy nañu li ñu béyoon am na ñoo nga xamante ni bi nawe bi dañ ko doon gebet di sotti ci teen yi am na paa boo xam dafa mer ba dafa gebet ma nawe naweem sotti ci teen bi kenn mënut a jaay dara béykat yi nekk ci ndóol ak métti métti bu nga xam ne yàlla rek la ñu ko diis dundoo dañ ko muy lu méttee méttee métti nga xamante ni banque ngi war a jël xaalisam mënuñu amuñu duñu ko fay euh, ah, euh, béykat bi mënut a jaay dund amatul ci kër gi tey ndimbali comme ni nga ko waxee xaw a néew lool état moom euh, wax na ni mu ngi doon dimbali population yi effectivement suñ di dund fii tamit dañuy wax lu ñu wax ni amul mais nag ni mu amee moom moo baaxul ndax ni mu amee mooy état defe naa am na ay nit ñoo xam jëloon na leen leen jox ay bourse familiale lu ci baree bari ñooñu la jëlaat maanaam fa euh, ndimbal mi euh, maanaam jëmale ko ci ñoom te itam ndimbal mi dëkk bu mu ci dugg mun naa ni 2 pour cent yi la laal 2 pour cent population yi ñoom la laal. Ah, dëgg la en tant que responsable tam bi nga xamante ni ñëw na euh, boroom dëkk bi bi muy séddale woo nañu toog mais nag séddal nañ ko ci difficulté yu mettee métti ndax dëkk bi feesoon na penc mi feesoon na te genn walaatu dëkk bi mënuñu ñoon am ci dund bi tey lañu leen joxoon tamit vraiment ñu leen woon dara ndaxte famille boo nga xamante ni macha allah tey jii am na famille yoo xamante ni amat nañu fan leen ci kër gi mbaa ñaar fukki nit mbaa fukki te juróom nga jox leen saako ceeb ak ak fukki litre dëwlin vraiment loolu duñu ko dundee sax ay 15 jours sax lañ koy dundee mu jeex muy tur bu nga xamante ni mënoo ne amul mais metti woon du ma ne deful nag ndax nit tam lu mu def lu mu tuuti tuuti wax ko waaye nag lañu la ñu def moom vraiment guutu doole ci biir géej li ñuy def dafa tuuti trop trop trop trop par rapport ak ni ñu ko defee teyit bu ñu ko joxee ni ñu ko séddale tamit baaxul ndax def naa population boo ñëwee am na ñu nga xam ne bindoon nañ leen ci euh, bourse yi tey bari na ñoo xam ñoo leen tane ñu ngi ci biir dëkk bi toog lekku ñu naanu ñu jël ko jox ñooñu ah ñi ci des toog vraiment di toog teyit ñooñu yorum dara loolu vraiment lu metti la woon lu méttee méttee métti ñun ñu fa toogoon di de rek dañu doon sollicité guddee bëccëg subaa ngoon dañu seet si te amuñu lu ñu leen jox mënu leen a wax leen il faut nguur gi jigéen jigéen population yi il faut nguur gi jigéen population yi li nga xamante ni tamit ñu ngi koy jàppale population yi vraiment ñu bañ koo jaarale fenn mu wàcce directement ci biir population yi ñu jotal ko seen bopp il faut nguur gi tamit maanaam di di di xool bëgg-bëgg population yi di leen laaj di di di di gëstu seen ay soxla di xool li nga xamante fa la gën a méttee ñu teg fa seen baaraam parce que tam mbir mi métti na métti bu nga xam ne ndax ñun wóor na ne en tant que population population doo nga ci boppam dara. population yi seen jëm bopp xam nañ ñi tànnaan de bu ñu ko joxee directement mu jaar ci chef de village ak organisation yi nga xam ñoo fi bokk nekk ñu bokk toog waxtaan. xool ni ñu koy defee defe naa ne loolu moo gën tey joxe ko def ko ab joxoñ jox ko ñu nga xamante ne wóor nañ ñi am nañu bari ñoo xam ñoo leen ne te amuñu dara